da Dilano Wit genn ba léegi ñu ngi ci concert BMJ Boy Yoff ah. grand bi outfit bi ah dafa <laughs> nice grand ñu ngi lay ziar ah ah <laughs> waa Lébu ñu ngi eh, waaye ku li ñu si kawam mi daanu BMJ dafa organisé vraiment waa Yoff ñëpp génn ñëpp support dañ nga gisee loolu waaw loolu dañ koy rafetlu c'est c'est logique quoi parce que gox bi ñu dëkk ñun benn benn say la quoi mooy benn bopp la mhm. képp ku xewle muy mbër muy artiste muy kuy def comédie muy kuy def leneen ak leneen ñu ñëpp dañuy génn soto sosotoo quoi loolu mooy suñu doole donc loolu du mës a dañ quoi. lan nga jàpp ne moo manqué yow bu peut-être artistes yi mënaguñu nekk au top carrément. bon pour man gars yi ñu ngi si ah, ñu ngi liggéey bon suñu genre yi ku si mel ni man. ku si mel ni BMJ am na yeneen booy yi nga xam te ne aussi ñu ngi ñëw. pour jël exemple si ñun rek man au nañ teg quoi li nga xamante ne nii moom mooy turu Yoff nekk si drapeau Galsen. jéem nañ fi def ay événement de gauche à droite jéem teg lu nekk. donc bu ñu demee ba tey Yoff gars yi xam ko donc dañuy am dañuy am satisfaction di ñaaxaat booy ne leen affaire bi amul xaar génnee la gëm ne da ngay def ay affaire génne na gëm da ngay def ay saal muy fees génne la. gëm ne da ngay jaay. voilà am ay stratégie yoo koy teg. benn conseil ba jox amul teggi tànk laa koy wax amul teggi tànk mu ngi si dynamique bu baax a baax. maanaam dafa sol drapeau bi nga xamante ne man foofu laay joué muy yof donc ñoo bokk équipe quoi. donc sama coéquipier la su ma gisee mu nekk di performer dama koy gën a jox bal bi muy gën a marqué ay loolu moo fa nekk quoi. ñu ngi la merci beaucoup